asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internetu Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàqu ci yéen di leen ñaanal tabaski jàmm parce nag waaw li ci des bariwul vendredi la incha allah yàlla nañ ko tal te fekke ko ñaan yàlla tamit nawet bi ñu dugg yàlla nañ ci génn ak alhamdulillahi rabbil alamin lépp luñ ci bay yàlla na ko buur bi nangu di jaajëfal internet yépp barke waaw di leen ñaanal jàmm daal et puis itam di remercier waat rek encore une fois yàgg gëj naa téye micro nii def interview xaw na yàgg tuuti parce que li ko waral nu ko de xam na si li ma nekkoon wala fa ko wax buri ak macilem mënuñoo ànd ma ñàkkoon sama rak Pape Modou Diop ma ko ñaanal yàlla xare ko aljana di remercier kilifa yi nga xam ne taxawoon nañ ci yëpp am di jàmm yeeg soppe yi suñu ginnaaw bi loolu yi am nag yàgg dafa am lu olof wax olof ne na ku wal mbarutu dub dëkk xam ngeen ko si làmb ñëwoon na fi benn année am lu mu fi defoon yaa ngi dégg année ba ca topp mu def année balance comme ni ñu koy waxee dellu am combat yu mu taxawal bokk na ci Tafatine Boy Niang Garga Mbossé ak Sa Thiès ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy dégg olof nag am na lu mu wax day leer maanaam <laughs> ki waral yëf yaa ngi nii Pape Thialis maa ngi lay nuy di la ziar di nuyu équipe Leewtoo bi yëpp ñi ma ko seqal yàgg si caméra bi Ndeye ay sa Aïssa ma madame Niang nuyu naa la DG. Babacar ñu ngi lay nuyu di la sant donc di nuyu sa équipe bi nga fi àndal. Mhm. mbégte si man mm-hmm. recevoir lañ fii seen bureau yi mm-hmm. donc ñu war a waxtaanee ak actualité làmb mm-hmm. donc comme ni associé wu aussi si li nga ñaan yëpp si nawet bi si corona bi pour mu jóge fi ak euh, tabaski bi yëpp maa ngi si associé wu di di wax di ñaan yooyu aussi ñu ngi si ñu ngi si wax lu baax amiin yàlla nangu ñaan Pape Thialis Faye ak làmb moom tur wi desaa jaxasoo nag làmb ba pare. Eh, balaa muy ñëw sax ci li nga taxawal ak yooyu lan moo indi tur wi kolewu ak làmb da nga mësoon di yëngatu ci làmb avant promoteur bi wala da nga ne amul mbër wala da nga bokkoon ci écurie wala quest a wala nu non làmb ji moom mosuma ci bokk ci écurie peut-être daanaa ci intervenir. après làmb ci yenn promoteurs yi. Mhm. par exemple madame <coughs> Serane làmb war a dox gis làmb nit ñi di def agression yenn problème yi. donc le lendemain damay wër yenn promoteurs yi ko organisé waxtaan ak ñoom di xool comment la ñuy def ba sécurité bi mën a am yenn yenn agression yi bañ am donc bokk na ci Gaston waxtaan ak moom bokk na ci moom ñu ñaa waxtaan ak moom Kafa euh, Dorom yooyu yëpp c'était pour parce que dama gisewoon làmb lu muy doxee nekk suñu suñu sport national nekk suñu culture Sénégal yëpp bëgg ko donc bu amee yenn act yoo xam ne de violence la war nañ si en tant que sénégalais en tant que citoyen en tant que amateur war naa ci wax. loolu laa wax ba yàlla def tey ñu nekk ci biir nekk promoteur di organiser lamb. kon daal mën naa ne loolu moo la motiver ba nga xëy nekk promoteur lamb. waaw. Mhm. nekk promoteur lamb neex na. bon promoteur lamb moom liggéey la rek liggéey la comme liggéey yëpp liggéey bu neex amul. Mhm. donc euh, dina neex dina naqari di nga si am ay stress di nga si am lu nekk mais c'est très difficile surtout que lamb fu mu tey bu njëkk bi xaw woon jafe. Mhm. mais tey fu lamb toll nekk na liggéey bu metti parce que mhm. sponsor amatul donc c'est très difficile nga jël sa xaalis investir ko. donc sponsor accompagné wu la yooyu yëpp dafa métti. donc liggéey bu métti la. Euh, ba tey damay dellu ci ginnaar balaa muy li taxaw nii Euh, Sa Thiès Boy Niang na di Tapha Tine Yékini Junior Bombardier ak Eumeu Sène Abdou ju Forza ak ay mbapat ah booy euh, Marley ak euh, xale ba nu mu tuddati Diène Kayré nga defoon ko ci benn saison loolu coow loolu bëri woon noonu ñu naan kii kan la ak fu mu jógeek loolu loolu bi nga ci génnee bi nga ci duggee coow li bëri bi nga ci génnee est-ce que réussir nga ko ci côté finance réussir nga ko ci côté bi nga xam ne nii mooy en tant que nit ki lu mu duggoon di ci ut dara gërëm am na objectif bu tàng atteindre ko. mën mhm. na nekk objectif financier mën na nekk aussi yeneen objectif yoo xam ne extra la yoo xam ne peut être atteindre ko te yàgg naa wax ni objectif bu ñu taxawoon tëgg la ma atteindre nañ ko. Mhm. mais l' essentiel de suba ñu ne président jàppale suñu jàpp. Mhm. jàppale jeunesse parce que jàppale jeunesse mooy jàppale président. que mu nekk làmb que mu nekk si beneen sport que mu nekk si leneen même fi nga dëkk sa boo jàppalee jeunes yi rek jàppale nga président parce que jàppale ni jeunes yi. il faut que am ñu leen jàppale. guider leen donc parce que tey chômage yi bëri na. nit ñi xale yi bëri nañ fi la majeure partie jeunesse euh, population sénégalaise bi ay jeunes lañu donc ñooñu bu ñu amul si luñu jàpp amuñu si luñu yaakaar rek foog naa ne mooy indi yenn yenn yenn yenn yenn yenn affaire comme violence yeeg di leen permettre aussi ñu dugg si yenn affaire wala si dugg. Mhm. comme jeune comme ñoom am jaar-jaar boobu jàpp naa ni ñoo jàppale rek ñoo taxaw ñu duñ si dugg et que incha allah lu ñu defoon noonu jàpp naa lu baax la jàpp naa aussi objectif bi amoon si loolu atteindre nañ ko looy tontu ñuy wax ne promoteur gouvernement bi la. waaw xam moom Sénégal wax la ñu. wax la ñu ak gis. Hmm. donc gisuma mu ne ko ñu fal moo ma gën a. Hmm. te toog fa lekk sa xaalis. ak hmm. dimbale nit ñi. Marième Faye Sall sa mbokk la. non mbokk dara. du ndey du bàyyi du mbokk dara fayee daje nga xamante ngeen daal am ngeen benn relation. ñëpp dañ la war a romb lu la yërëm donc boo jël initiative jël ay ay initiative am def fi faut ñu am ñu ko ñu ko dàkkale mhm. mais yow yaa xam yaay téye sa xam ne nga li nga tax a jóg dox ci fexe ba ñoom fu fu nekk fu lay xaare ñu ko ñoo fekk àdduna nag c'est fait des hauts et des bas des difficultés yëpp mais tout lép loo gis rek sérénité la laaj ak analyse nga ñëw année boobu macha allah lam ji jax de année ba ca topp nga ñëw def année blanche maanaam tëggoo làmb lan moo la téewoon ba maanaam année bi topp ci bi ci toppoon noonu gisaatuñ la nga ñëw def te nit ñaa ngi la doon xaar. xam nga xam première année bi day day ñàkk nga am say tolof yu bëri yoo ci yoo ci yoo yoo xam ne pour man dañuy yokk parce expérience bu jël la. mu nekk lu négatif comme mu nekk lu positif. Mm-hmm. expérience la boo xam ne dañuy yokk. ñuy jógee léegi macha allah da ngay ñëwaat ñëwaat nga parce que ñëw nga indi ay combat Tapha Boy Niang Garga Sa Thiès ñëwaat bi lan mooy motivation bi. lu la puusaat ba nga dellu si combat bu toll ni Tapha ak booy Niang noo def ba taxawal ko parce que nit ñu bëree bëri affaire dafa leen a bett ci yan si yan yoon foo jaar ba dugg ci boobu combat ba ba taxawal ko moom boo defee benn at ci benn ci benn secteur benn business mu mhm. ci expérience mhm. parce am na ngay analyser noo xam ne duñ ci jàng ñu si jàngee moom mm-hmm. bu nekkee lu baax ñu dañ leen utiliser ko pour ci loolu donc bañ ci bañ ci génnee pour taxawal combat bi c'est pas difficile mm-hmm. donc woon loo xam ne woonu nit na ko doxal ñu war doxal ñu yële yàlla dafa defal ma relation ak boo ñaa am na relation ak defancé ñoo xam ne ni si làmb ji laa ko jëlee donc làmb ñun mënuñu ko fay parce que lu koon ba am nay benn benn tour beeg ak benn kii wax ne làmb mu nekk aussi suñu sport boo xam ne képp kii promoteur mu mujj ñu dëkk tëb bi jur bi wala war nga mën a gën a ñëw suufat lamb bi parce que lamb bi warul taxaw. Mhm. fii si dund moo bëri. Mhm. donc quand ma déggee nañu naan du acteur de développement daf may jaaxal parce que ay milliers de milliers de personnes ñoo siy dund. bu lamb amee tey ñi siy dund am une semaine wala dafa bëri. dafa bëri acteur de développement la donc ñun si nekk ñëpp nag promoteur on prend des risques pour dimbale dimbale nga xam ne mooy njiit réew parce que moom mënul mënul jox ñëpp liggéey. su ma la déggee ci sa biir wax ne nga relation yu am ak Tapha Tine ak Boy Niang moo tax combat bi newoo ci nit naa yow yaa ko doxal sa bopp yow kon yow yaa jël sa téléphone woowoo kenn yaa woo ñaari mbir wala woo seen encadrement wax ak ñoom déggoog ñoom. waaw man maa dox ni Tapha Tine Boy Niang maa ko dox maa ko woote maa dox maa dem seete waxtaan ñoom yëpp c'est lu bon man naa ko max jàngal nañu làmb jàngal nañu ñuy démarché mbër jàngal nañu tey mbër ñu waxtaan xamal nañu ko a loolu ñu ko ciy gërëm au passage parce que tey jii ba ñuy bëggee dugg làmb fu ñu jaar yëpp laajte dañ nañu wala bu nga xam si làmb dara dem si maximum dara mhm. donc bu loolu tax na tey ñu jàng ci moom lu bëri ba xam ne dox nañ ko même sa yëgu ko après dañ ko yëgee lépp mu ne moom tamit las dem seen bi c' est ba ñu mën a dox làmb ba taxawal ko moom mbégte la ci moom mbégte la ci moom xam ne fu ñu toll lépp lu ñu def si ñaari mbër yi comme say nit lañu comme ni nga ko waxee euh, euh, maanaam affaire bi nekkul woon lu dëgër pour nga wax ak ñoom déggoo ak ñoom ci ñaata fan wala ñaata semaine wala ñaata weer ci la waxtaan wi diire. mais problème bi mooy mbër amul problème c'est-à-dire si ëpp solo problème mu yi nekk te cachet bi bu xoolee situation fu mu toll pandémie fu yooyu yëpp fu mu toll war na mën a assurer parcours war na mën a raisonnable si prix. Mhm. donc ñu je sais que mbër bu raisonnable da suñu papa garçon papa garçon da koy wax ñeneen aussi di ko wax ñu tëgg la parce que aussi nit ñi bu ñu la tëggee nga raisonnable lu bon mën nañ sa wax mhm. que ni ñu waxtaan déggoo si ay kàddu et puis ñu officialisé ko ñu euh, bi boo ma doon xaymaal budget ñaari mbër yi ñaata la non budget bu xam nga xam nga tey modèle économique bu parce que tey si làmb dafa am modèle économique yu bëri moom tey am na modèle économique pay-per-view am na modèle économique TNT am na modèle économique am na modèle économique boo xam ne ñun moom la ñu indi muy modèle bu bees boo xam ne liggéey ak benn télé exclusivité télé bi nekk loo xam ne da ciy participer. Hmm. donc loolu modèle boobu la ñuy indi ak billetterie boo xam ne boo xoolee def sa business plan dañu ne à peu près temps laa waram par rapport loolu nga waxtaan ak cachet xool loo xam ne ni. ëllëg du la benn maanaam bu mu nee kase maanaam kase bi laa bëgg wax quoi ñoom tey boo doon ma maanaam seen seen seen kase ñaata la oto am parce que booy ñag déggoon nañ fi ñu ne fay nañ ko fi ci benn combat 50 millions ñu naan 60 millions mu bañ ko kon xëy na kooku tey boo koy tëgg. Ah, hmm. combat bi kon fayoo leen 60 millions kenn ko nga kon mën nañ koo xalaat xanaa ci ay cinquante millions affaire yooyu kon dafa mel ni xam nga boo nee fa cinquante soixante millions jëm kaw moom mën na tourner autour de cinquante millions wala côté yooyu. contrat ñu lii. waaw dañuy xayma rek. waaw mooy euh, boo xam ne confidentialité la tudd. Hmm. liggéey sax waruma entourage am ñëpp waru leen parce que loolu mooy contrat. loolu mooy contrat tey bu ma tey fay naa ko taw wala fayam ñi wax ko nit ñi nii sax ñu ngi leen di woo. di leen laaj ay xar. xar dafa difficile. <laughs> parce que moment bi tey bu ñu fekkoon tey tey bu ñu bu tuuti xëy def événement bu ñu def noonu duñ def présentation dañuy bàyyi ba tabaski passé. Mm-hmm. parce que tey teg naa leen coono ñoom. Mm-hmm. bien que am naa coono mais ñoom teg naa leen coono parce coono bi mooy. ñëpp yaakaar nañ ne am nañ ay milliards yoo xam ne ñu parce que am nañ combat. donc loolu boo xam ne man maa ngi àgg ak. mais loolu nag liggéey la seen heure liggéey bu jotee moom ñu ne la kaay waar waa ngi da ngay liggéey. mais période bi moom commencé ama bi ñu bu ma nee baaxul ak tey yëpp gis ko télé bi. xanaa da nga jox booy ñaaw wala tafaatin ko li ci ne da nga ko jox ween bi danga mais mais for côté boobu dinaa ci continuer parce que fan yi dégg nañ tamit ñuy wax ne da nga woo mbër yi noonu rek kii ak ñoom mais wu ñu xaalis loolu loo ci mën a leeral sénégalais yi. non xam nga nga sénégalais la ñuy wax c'est-à-dire que yi ñuy bind bind nañ ñu am ñaari sources yi parce que naa ni ñu ñu suñu xarit la seen directeur nekk sama xarit donc li ma si war a wax ak moom wax naa cee moom ñi ko bind aussi wax naa cee moom parce que bëgguma lu ñaaw ci ci diggante bi. ñu nekk ñu ñu professionnel mais parfois du ñàkk ñu bu ñu leen mais du ma wax dañu war a ñu woo ma envoyé message jotuñu ma dañu war a xaar ba jot ma parce que information bi nga xam ne ko denc rek ba jot ma ba ma confirmé wala ma ba ma infirmé ko mu soog a xam ne ñu bind mais jàpp nga leen dara jàpp naa ne parfois day am si erreur de mais jàpp gën a nekk ay nit nekk xale maintenant par rapport ak loolu xam nga euh, risque nit du ko jël à cent pour cent parce que pandémie bi fu mu toll nii kenn xamu ko lay jeex. waaw kenn xamu ko lay jeex donc tey mënoo tey na par exemple nit war naa ko fay vingt millions nga jël moitié jox muy nekk parce que kenn xamu ko. Hmm. saison bi nga saison bi bii ñëw la saison bi ñëw nee nañ deux mille vingt deux mille vingt et un mais mën na dem ba kon tey jii bu fekkee ni làmb ji deux vingt deux mille vingt et un deux mille vingt deux la ça veut dire que contrat bi vingt deux mille bu ñu amul compréhension mën nañ ci indi donc loolu aussi ay risques yoo xam ne benn de risque daf leen xaalis bi mhm. di joxe le minimum boo xam ne nit mën na si jàpp en tant que affaire yi ñu am visibilité si fu ñu jëm ñu soog a ñu soog a régulariser mais ñoom encaissé nañu dara ñaari mbër yi Tapha Tine ak Boy Niang ku ne encaissé nga xaalis waaw non non non non no non lool non non xam nga waxuñu la nga wax ñoom li nga leen fay mais dañ la ne est que ñoom encaissé nañu xaalis loolu kay woy ou non la rek dese wala. <laughs> waaw. waaw non ak ñoom moom même bu ñu encaissé wu koon sa des na leen laaj xar ndax ñoom ñaar mënuñoo bañ a joxe xar. ah waaw mais est-ce que enca yow jox nga leen dara. ak man ak ñoom parce que même bu weesoo lii ba woo nañu ma xam nga yow kañ kañ nga leen kalaame ba nga ne seen combat taxaw na présenté leen li la laaj bi kañ DG. waaw mais est-ce que encaisse waaw encaissé wuñu dara dara da li nga li waaw man man moom laa am man donc moo tax ma ne gàddu gàddu naa la mais si loolu waxtaan nañ ci lu bëri loo xam ne tënku nañ ko incha allah loolu moom mu ko dévoilé ne lii nañu wala lii boo ko dévoilé rek mooy déjà secret amul. mais kon moom moo yoralee <laughs> xaalis. waaw naa ko fay ma par force. waaw mais nee naa la fay jox naa la temps. donc moo tax de souci mais nag DG xam nga ñoom mënuñoo wax ba jox lu paase ay xar kon yow ñi doon xalaat naan ñii encaissé guñu wala nangam sam est ce que ñooñu tamit da nga leen di gën a confirmer yow wala doo gën a confirmer ñi doon wax ne encaissé wuñu xaalis non même pas xar yi sax quoi mais yeneen affaire. amal nga bor ay nit. yoroo yor famille yor entourage yor ñëpp da nga ñëw ci xaalis di leen di di di régler ses problèmes ba basé ko si boo amee combat remboursé mais boo amee combat dina nekk trente benn trente millions quarante millions boo amee nit jàll na ma si combat yu bëri ama seen daf na ci xaalis combat boobu après ba mu defee xaalisam ñëpp da ko fay ay bon ak keneen ak keneen donc loolu moo tax mënuñu dugg ci confirmer ou infirmer loolu mais buñ ci paree si tabaski bi waaw mën nañu ci dugg ñoom ñooy lii ak lii ak lii kon daal internet di jàpp leen loolu kon dégg ngeen mënuñoo confirmer ne encaissé nañ wala encaissé wuñu loolu moom moo waaw waaw ko am na solo di nga ci gën a dugg daal am na solo kon gaa yi jàpp leen loolu léegi damay ñëw si beneen combat boo xam ne nii nee nañ taxawal nga ko Sa Thiès ak Garga Mbossé boobu combat da ko taxawal. waaw Sa Thiès Garga Mbossé je pense que ba si présentation bureau doon waxtaan ci ak kilifa Garga Mbossé ñu manager la kon ma baalu waxtaan ci ak Maxime Ngane d'accord ci cachet mais waxoon na leen que bu ñu régulariser rek micro bi deuxième. semaine prochaine mais semaine bu nekk. Mhm. donc ak tabaski bi c'est très compliqué. Mhm. mais incha allah bu fekkee ñoom achat bi ñu wax ñu ngi ci engagement yi ñu jëloon ci parce que a. Mhm. bi incha allah on va régulariser mais mooy lu ma wax cest aujourd'hui lépp lu ñuy def ñu mën ak yeneen promoteurs yi risque la. waaw risque waaw risque la parce que xamuñu saison bi kañ lay ubbi du kenn ko xam parce que pandémie bi moo tax. kenn mënu ko xam aujourd'hui boo xoolee ñi nga xam ne saison bi ñu nekk bu ñu génn nii bu war a jeexal 31 juillet bi ñu tëwal làmb tey bi si bëri seen làmb amul lu ko indi pandémie bi donc woon kañ la ñuy tëgg xam nañu ko te jox ay yoo xam ne ñu si nekk si liggéey dañ si xaw a def prudent tuuti le temps que mbër nag du wedd di nga ko jox tuuti mu tey moom tamit am ay affaire bi mu dox mais mënoo ko jox loo xamante dina consistant bu mën ko mhm. mais kon daal Garga Mbossé ak Sa Thiès moom ci kàddu la yem nii rek daal maanaam waxante nii engagement la ko parce que xam boo nee régularisé moom régularisé moom CNC mooy ubbi ñu mën a xanaa kay ficelé maanaam daal waxante ngeen ci ñetti parti ba déggoo. xam waaw waaw conseil manager yi am nañu leen jox ñu ficelé def contrat bi téye ko di xaar saison bu ubbi maintenant ba saison bu ubbee ba CNG ubbi dañu dem ba situation ba jël date pour boobaa nag ñu a régulariser seen situation par ce que waaw naa ni engagement la bu ñu ñu jël te ci ñoom aussi ñu jël ñu jël engagement bi euh, di baaru nga xam ne am na relation ak famille. Karga Balla Gaye. waaw famille Sa Thiès. parce que nekkoon na seen. Ndiaye leen jàppale si si si li mu nekk. waaw nekk tey manager wu Garga. Mhm. jege Aziz Ndiaye bi nga xam ne tey jii presque moom ak Baye Ndiaye ñoom ñooy ñoom ñooy yore Balla Gaye ak. Euh, Sa Thiès donc si téléphone lépp ñu wax ñoom ñëpp ñu jàppoo ci li ñu am na cachet bi la maintenant ce qui des mooy avance bi incha allah bu ñu génnee tabaski ñu régulé. dina ñu encaissé daal. waaw parce que loolu lu ñu si bëgg rek mooy bëggal Sénégal yi bëggal amateur yi parce que combat bi nit ñi bëgg la. donc pour man ñu tëgg ko bëgg Sénégal yi moo tax ñu mais est-ce que xalaatu keneen jaar la fële sàq ñëw jaar la ginnaaw jël boobu combat parce que combat bi ñu ko soxla bëri na nag sa garga Sa Thiès. mais xam nga xëccoowuñu. waaw mais nag ñoo nañ ci làmb ñoo nañ ci làmb gis affiche boo xam ne am na jafe-jafe ñu jox ñu ko ñu tëgg ko te pourtant moomuñu ko woon dañ koy dox fekkee wuñ ko mais yàlla def nañu Eumeu Sène ak. Bombardier ak Bombardier. yàlla def mujj si ñun. Mm-hmm. donc loolu suñu suñu suñu borom la. Mm-hmm. donc lii aussi du lenn loo xam ne am na këyit bu ñu lii mais parole d'honneur moo ñu lii engagement moral moo ñu lii ak ñoom. Mm-hmm. nekk ci loolu. maintenant bu fekkee ne ñoom am na ñeneen ku ñëw seen lëkkaloo yi ko problème yëpp c'est pour pour sénégalais la pour amateurs yi la nga uti beneen affice teg ko. nga uti beneen solo man affiche bu mu mënti nekk. liggéey rek la laaj. Mhm. nga fay cent milliards fay deux cent millions fay cent millions lu mu mënti nekk affiche bu mu mënti nekk. Mhm. liggéey rek liggéey da dox kalaf entre Moussa Ndoye. Euh, ama neex Modou Anta ak euh, Kële Diène Kaïré. kalaf moom mhm. la ñu waroon diw maa ko sut maa dugg fii maa génn fii donc loolu daf ñu xaw a tànn si loolu sax la nekkoon moom. pour def kalaf. Hmm. mais situation bi toll ndax xamaguñu pandémie bi dañ lay jeex. Hmm. boo fi jëlee classe bi nekk huit combat. Ah. waaw boole si deux combat muy dix combat. Hmm. te déjà am na ñoo xam ne daaw am nañ ay combat yu tëggagul. bien sûr xam ne day seer. waaw ah. day compliqué. mais li nga xam ne ñun moom lañ bëgg a def ñu trois solo. maintenant trois combats yi si kalaaf bi nag ñooñu mën yi nga xam ne soit si kalaaf bi. def trois combats si at bi kon mën na am visibilité si si saison yi bu ñu ko amee. ñu soog a dugg si ay classe la mais nekk nii boo defee classe li huit boo boole ko ñaari combats yi dix combats ñëpp xam nañ si impossible nga